bon dama ñëw rapidement rek def benn vidéo euh, ginnaaw euh, bi ma gisee ni euh, oustaz Matar Sarr nga xam ne ñoo bokk ñun ñëpp ànd sàmm jikko yi jot na benn plainte boo xam ni dafa jóge ci wàll sekk bon may wax ni comme ni nga ko waxee moom oustaz Matar mbégte mu rëy la pour ñun ñëpp Eh, ndaxte jàpp naa ni eh, Wally bu osé def plainte boobu ça veut dire am na ñu nekk ci ginnaaw jàpp naa nag léegi lépp dina leer eh, comme 11 août la incha allah dina nekk bis bu rëy boo xam ni ñëpp dañ ko waajal incha allah ànd sàmm jikko yi def mobilisation bu mucc ayib dajale ñi nga xam ni gëm nañ ni dañu war a taxaw xeex valeur yi.

parce que li nga wax lu leer la da ko wax ci turu ànd sàmm jikko yi comme ñun ñëpp nañ koy wax fii góor jigéen bu fi taxaw di fesal sa ngóor jigéen ci mbedd yi danañ tàllal sa nuunar loolu ñu wax duñ ci dellu ginnaaw ku fii taxaw tamit di def say concert ñu fay fóonante ñaari góor di fa fóonante wala euh, wala yu mel ne noonu ngay jël ay t-shirt LGBT di ko sol ah, ak di jël drapeau LGBT di ko fësal kooku dinañ taxaw dénoncer ko avec la dernière énergie et eh, qu'on le veuille ou non cet artiste là ce la fi def maintenant ne bu pas ne day jéem a mais nit y mais dina l'air. de toute façon eh, on restera ferme eh, au nom de tous les Sénégalais épris de euh, de justice et de euh, valeur maintenant euh, vraiment moi je suis très content de la situation di wax Oustaz Matar que comme nous avons ko ndam lu rëy la ci moom man su sañoon mu doon man euh, léegi nag ñun ñëpp dañ leen taxaw taxawaay biñ ci war a am dajale kuréel yi euh, sàmm jikko yi les cinquante quelques association ñu taxaw teem ànd ak euh, kilifa yi nga xam ne li ñuy def ni ci seen tur lañ koy def comme ni nga ko waxee di am ndam nag incha allah parce que ku ànd ak yàlla subhanahu wa taala ndam rek ngay mën a am incha allah jaajëf maa ngi nuyu.